yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar atum 2019 maire bu commune bu an bel amalon ab cérémonie ngir jébbal ay matériel sen centre de santé bi ak itam ay subvention yu muy jébbal association yu nekk ca gox ca noné mom Babacar Meng di maire bu commune bu an bel por ndolu nasi ngir leeral lu waral leni mel. tay liñu fi dajalé d'abord moy cérémonie de subvention bo xamantane ne mun naa ne dafay gulet du gulet chaque année dañuy dajalé en tout cas association yi yi nga xamné ñi ngi yëngu ñi dañuy yëngu ci walu environnement les conseils de quartier association élèves et étudiants euh, da ngay xol euh, comité consultatif des femmes euh, association bép association ba xam te ne yaa ngi mën activité dañuy faratal di len jàppale ci li nga xamné moy sen programme d'activité alors ñu dajalé wonal tay donc mobiliser plus de 32 millions pour dañ les 70 associations yi fi nek di benen bi nga peut-être une euh, peut-être coïncidence la wala dañu rapprocher activités yi matériel bi ngeen fi gis valeur 96 millions matériel da structure de santé benn bi radio numérique la Radio numérique dafa am solo mais radio numérique maintenant aussi de aussi de dafay radio numérique bu peau en tout cas donc de dernière génération ni ko rien que radio numérique je crois que c'est plus de 70 millions alors beneen Bi équipement laboratoire équipement laboratoire xam nous ni mu solo ci biir en tout cas liggéey bi nga xam ne moom dans les structures de santé de même que groupe électrogène parce que da ngay xool nga toog ci sa chaise dentaire courant coupé nga war a toog nekk ci biir euh, laboratoire di am liggéey wala nga toog di def rajo donc moo tax ñu ne woon il fallait que ñu jël en tout cas matériel yoo xamante ne dafay garantir la qualité mais permettre aussi médecins yi ñu mën a assurer la nga xam ne mooy seen liggéey alors loolu yëpp dafa am rek ci luñ ci tënk lu bees loo xamante ne aussi bokk na ci li ñu boole mooy lu jëm ci wàllu subvention au lieu de culte bu ñu nee subvention au lieu de culte moy li dem ci ci juma yax jàkk yi ak li nga xamne da fay dem ci jàngu bi donc amna 10 millions yo xamantene koku at bu jot dañ koy def diko jox donc ñu koy faral di defal aussi ñi nga xamne ñoy église bi war lañ jox 10 millions parce que amna projet bu mag bu am maris ñu wara tabax fofu donc euh, ben église motax conseil municipal bi ci biir waxtan ñu ne woon ah ren amna lo xamantene effort bu ñu war def la mais ngeen japp ne subvention mom da fay lo xamantene at bu jot mom nañu am aada la fii mom ba tey ma nga ñuy xamal ni limu bëgg mooy centre de santé bu Hann bel du manqué dara ba askan wi duñu génn di faju ji. baax na torop ñu def promotion wu centre de santé Hann sur Mer wala promotion wu beneen centre de santé ci kaw la nga xam ne moom la askan wi yaakaar bu ñu demee ci biir centre bi ñu mën ko fa fekk parce que bu fekkee ne dem nga fa am nga médecin yu baax yàlla def na am na médecin yu baax bu fekkee ne ci walu organisation planification la je pense que politique sanitaire bi da fay lo xamantene docteur si ñi ngi ci accompagner di ñu conseiller di ñu jox orientation yi nga xam mom lañu wara def ba ca des nak bu fekkee ne nag nit ñi ñew nañu amna lo xamantene xamante ne lu ñu yaakaar la en tout cas man en tant que maire limay yitel moy taxawal fi askan bi def mettre en place matériel yo xamantene ne képp koo xamante bëgg nga ko nga mën ko nga mën ko jëriño mais à un coût accessible aussi parce que tay xam nga ne ku xol radio numérique bi tay bo demoon ci yenen centre yi lañ lay facturer ak li nga xam ne moom la ñu facturer fi da fay don lo xamantene du don ben donc vraiment ñun ñi ngi top li nga xam ne mooy logique u décentralisation. bu ñu sukkandikoo ci mom ba tay stade bi ngay xamantene ñu ngi koy commencer di tabax liggéey ba ngay avancer bu baax. tay bo demee stade municipal wu Hann di nga gis ne que commencer nañu liggéey liggéeyu gazon synthétique bi lool nak da fay lo xamantene wax deug yalla conseil municipal dañ ci japp ñu am ben alliance bo xamante ne ni ma ko mën a zone yi équipe bu yi conseil municipal bi ak bureau municipal dañoo taraw xex pour que inscription bi mëna am tay mun naa ne ba mu amé ba légui c'est la première fois que ñom inscription ci ben ligne budgétaire rek muy 500 millions moy li nga xamné mom lañ defaree gazon. muy lo xamante lu am la donc da fay lo ne inshallah espérer nañu ñetti ñu mën a réceptionner en tout cas li nga xam ne mooy suñu stade euh, municipal. waa commune bu Hann bel rafetlu nañ bu baax xew-xew bi nga xamné sen maire moko don amal ngir ay subvention ak itam ay matériel ngir gëna suxali sen poste de santé. bés ba nak ay autorités yu bëri teewe woon nañu ko ku ci melni préfet conseil municipal yi bàjjenu gox imam yi ak itam wa jàngu bi. ñoom nag ña ngay rafetlu bu baax liggéey ba nga xamee ne seen meer ma ngi koy amal